alors euh, may man damay ñëwaat tuuti ci kaaw euh, général euh, Moussa Fall ah, lan nga lan nga xalaat ci ay mbiram parce que moom tamit am na fu ñu ko yaakaaree woon te yàgg nañ ko joxoñ ci surtout manifestation yi nga xamante ne moo amoon diggante 2021 ak 2023 alors général général Moussa Fall dafa jël le commandement de la gendarmerie ci période bu critique Euh, comme ni ma la ko waxee moom moo remplacé Jean Baptiste Tine euh, Sénégal nërmeelu ci insécurité Sénégal nërmeelu ci insurrection Sénégal nërmeelu ci ay kasak ay yooyu mu jël le commandement de la gendarmerie euh, ce que Moussa Fall a réussi c'est d'avoir rassurer les Sénégalais quant à leur sécurité et d'ailleurs boo xoolee Euh, léegi Moussa Fall dañ ko médiatiser euh, bari na ñoo xam ne à l'époque daan nañ daan critiquer son action euh, Moussa Fall est devenu une une icône mm. parce que dafa ñëw fekk la gendarmerie ci moment yu metti fekk réew mi en terme de sécurité ci situation bu metti Moussa Fall s'est battu pour équiper la gendarmerie Moussa Fall s'est battu pour augmenter le nombre de le nu mu tudd mm-hmm. le nombre d'hommes yi nga xam ne ñoom ñooy servir au niveau de la gendarmerie euh, ñëw jël la situation en main euh, rassurer ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi tey euh, bu ñu mënee dem vers une élection apaisée retrouver de la tranquillité dañuy jaajëfal bu ñuy jaajëfal parmi les hommes de tenue parmi les patrons des FDS yi ñuy jaajëfal Moussa Fall dafay nekk en tête de liste Euh, ce matin dama doon discuter avec un confrère Yoro Dia mu ne ma Moussa Fall c'est l'homme de la décennie et il a parfaitement raison euh, moo tax dama gis démb euh, Moussa bi muy def le salut militaire à Bassirou Diomaye Faye voilà ça sa ça fait réagir mm-hmm. mais ça ne devrait pas faire réagir affaire bi du affaire u àq du affaire xawma ay yàlla ay àdduna dafa dafa dafa gudd tànk contexte la ce que ces gens là doivent comprendre c'est que Moussa Fall est un serviteur de la République mm c'est un serviteur de l'État et il sert l'État sans état d'âme Moussa Fall a servi sous euh, Ablaye Wade moom moo nekkoon section de recherche et bi muy nekk section de recherche aussi il était très euh, en tout cas son action a été reconnue et magnifiée Moussa Fall a servi sous Euh, euh, nu mu tudd Macky Sall. Mhm. sous Macky Sall ñu porté ko à la tête de cette gendarmerie là Moussa Fall du Macky Sall lay servir c'est pas la personne de Macky Sall euh, Moussa Fall c'est un serviteur de l'État du Sénégal et quand il est quand il est quand doit s'acquitter de sa mission de servir il s'en acquitte sans état d'âme Moussa Fall gisul Macky Sall Moussa Fall l'état du Sénégal le gis Moussa la sécurité des personnes et des biens le gis Moussa il a fait le salut Euh, militaire à Macky Sall excite Macky Sall il le fera avec euh, toute la dignité et toute la fierté requise pour Bassirou Diomaye Faye c'est pas Bassirou Diomaye fay la Moussa Fall di gis Moussa Fall il voit le président de la République chef suprême des armées loolu ku ko comprendre rek euh, da ngay da ngay da ngay réer euh, ñi koy sànni xeer di critiquer son action ay waaye nañu nañu ñaanal Moussa Fall heureusement qu'il y a eu des hommes comme Moussa Fall heureusement qu'il y a eu des serviteurs de l'État du Sénégal. On a évité le pire. voilà heureusement. parce que bu ñu amul woon aujourd'hui des hommes courageux comme Moussa Fall euh, ñu bu ñu amul woon des hommes courageux euh, dans les armées Mbaye Cissé bi mu ñëwee aussi ak même Cheikh Wade ak dans cette situation de confusion là les gens étaient rassurés par leur profil euh, par leur parcours euh, militaire et académique et par leur haut fait d'armes ñooñu tey bu ñu taxawul woon ñun tey Sénégal ñu fi nekk di naan euh, une troisième alternance mm-hmm. gis nga dans les autres pays les les les les les les les hommes de tenue qui sont à cette station là sont des opportunistes bu réew mi jaxasoowee au lieu ñu acquitté wu de leur mission républicaine euh, de préservation de l'intégrité du territorial euh, de protection des personnes et des biens au lieu ñu acquitté wu de leur mission de servir l'État mais dañuy ñëw def un coup d'État. on le voit dans la sous-région. imaginez tey Sénégal te ay moment ñu ngi doon tiit. Mhm. Sénégal tey bu ñu waxoon coup d'État mais dina am portée boo xam ne képp kuy sénégalais di nga rus. parce que ñun bokk na ci li ñuy kañee c'est un pays où l'armée est républicaine c'est un pays qui contrairement à tous les pays d'Afrique n'a jamais connu de de de coup d'État donc Moussa Fall buy Moussa Fall c'est pas il ne il n'a pas géré la gendarmerie de Macky Sall Moussa Fall a commandé de main de maître la gendarmerie de l'État du Sénégal Moussa Fall n'a pas servi Macky Moussa Fall a servi le président de la République chef suprême des armées Macky Sall. il a servi la République voilà la République pour man c'est un homme digne. gis nga kolibé yeeg wokkatu yeeg yooyu. amul njëriñ gis nga Moussa Fall tout képp bépp sénégalais bu nekk nit. xam luy état xam importance su sécurité. de saay boo yeewoo foo dajeeg Moussa Fall da nga koy wan respect foo dajeeg Moussa Fall da nga koy exprimer sa sa fierte e heureusement qu'il y eu des hommes comme Moussa Fall à la tête de nos armées. Qu'il y eu des hommes euh, qui, ont, qui se sont inspirés de Moussa Fall. Gis nga des gens comme Moussa Fall. Euh, c'est comme Babacar Gaye c'est mm -hmm. comme tant d'autres généraux euh, ou Semga qu'on a qu'on a eu. Mm -hmm. des hommes euh, dañoo war a taxaw ci seen histoire pour que mu inspirer d'autres Sénégalais. Mm-hmm. pour que bu Sénégal tollee ci situation yu mel nii mu am des hommes comme Moussa Fall comme Mbaye Cissé euh, comme euh, comme le DGPN damay fàtte tour bi. Mm-hmm. Euh, le le DGPN le le patron de la police. Mm -hmm. euh, ah waay dina ma rey voilà euh, comme le comme l'actuel DGPN nga <laughs> xam ne euh, dañuy taxaw acquitté wu de leur mission républicaine. Oui. Et Moussa fal a tout simplement servi l'État du Sénégal. Et quoi qu'on puisse dire, les images ont été belles quand même. Moussa Fall continuera hum. Euh. à servir l'État du Sénégal. Euh, lenn rek moo mën a changer pour Moussa fal c'est que euh, président bu bees bi ne ko parce que tamit euh, voilà confier le commandement de la gendarmerie euh, c'est le c'est c'est c'est la c'est la discrétion mm-hmm. euh, du président de la République Moussa Fall lenn rek lañ mën a jël ci moom xëy ne ko nekkatuloo au commandant de la gendarmerie mais Moussa Fall il restera général il va continuer à porter ses galons mhm. il va continuer à servir fièrement l'État du Sénégal te Moussa Fall peut se dandiner fièrement dans ce pays-là il n'a pas à avoir honte de quoi que ce soit c'est un homme fier c'est un homme qui a été courageux c'est un homme qui s'est acquitté de sa mission républicaine kenn amul loo wax parce que Moussa Fall a servi le Sénégal qui lan la gis c'est l'État qui est menacé quand l'État est menacé le le le le devoir et l'obligation euh, d'un homme comme Moussa Fall et de tant d'autres hommes mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk aujourd'hui dans la hiérarchie de la gendarmerie muy ñoom Abdou Mbengue ak ñoom ñooñu ñëpp xam nga la mooy seen devoir arrêter la menace contre l'État mm-hmm. bépp mm -hmm. sénégalais bu constituer une menace pour l'État du Sénégal le devoir de gens comme Moussa Fall c'est de vous arrêter mm-hmm. parce que état ñun ñëpp suñu suñu suñu suñu suñu moomeel la. Mhm. tey létat état du Sénégal bu affaissé woon te tolloon nañu foo xam ne y' une volonté d' affaisser les fondements de l' du Sénégal et Moussa Fall a été là ñun loolu la ñuy retenir on ñun pour ñun Moussa man Moussa Fall euh, du quelqu'un qui a outrepassé ses prérogatives dafa def liggéeyam ba tax tey. ñun ñu toog fii di def émission nekk ci jàmm ba tax tey mu am une élection démocratique libre et transparente bu tax tey Bassirou Diomaye Faye ah nekk président de la république nekk président de la république jël Ousmane Sonko def ko premier ministre loolu yëpp bu amee c'est parce que Moussa fal et compagnie ils ont joué leur rôle le DGPN Seydou Bokar Yàgg muy ces hommes là qui étaient là entre 2021 et 2 et 2024 qui ont permis à ce mm. pays là de retrouver sa stabilité sa sérénité et qui ont permis à l'État de rester debout et, et à rester fort Moussa Fall on lui tire notre chapeau man de bokk naa ci sénégalais yi nga xam ne te bari naa ci ay moroma ah. boo xoolee ni ñuy médiatiser les actions de Moussa Fall ñoo xam ne ils sont très fiers de cet homme là c'est un homme qui mérite qu'on lui rende hommage c'est un mérite tous les honneurs il n'a pas à baisser la tête et il ne baissera pas la tête et puis waxu dof yooyu dañ ko war a bàyyi boo xamul état da ngay dem jàngi état boo amul xam-xam da ngay dem jàngi Moussa Fall c'est un républicain suñu borom nag mooy fal te suñu mhm. borom moo ne woon Bassirou Diomaye Faye mooy jiite sa pays là les cinq prochaines années te bu soobee bu neexee Bassirou Diomaye fay Moussa Fall va continuer à lui donner le salut militaire gis nga Abdoulaye Wade mhm. bi mu jëlee nguur bi en 2000 euh, dafa am comme si situation bi euh, Abdoulaye Wade a fait de multiples séjours en prison oui. Ablaye Wade a eu beaucoup de problèmes euh, mm-hmm. euh bu élection jeexee ñu jël yóbbu. Mm-hmm. assassinat maître Babacar Sèye ñu jël yóbbu. wala euh, voilà voilà euh, voilà contestation électorale amee ñu jël ñu jël yóbbu. lu nekk jiñ nañ ko fi léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite woon li nga xam ne moom mooy les corps d'armée là comme nii. Mm-hmm. bi ñu ñëwee dañ doon on s'attendait à que Ablaye Wade fasse des changements. parce que ñooñu voilà ci seen parcours. Mhm. Euh, amoon nañu da daje nañoo ak Ablaye Wade teg nañ ko ci yoon. Euh, tëj lu nañu ko euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen Ablaye Wade laalu ci kenn. contre c'est ça c'est ça la grandeur d'un homme d'État parce que Ablaye Wade euh, c'est un c'est, c'est un homme qui connaît l'État même s'il n'a pas beaucoup servi. Mhm. dans l'État yàgg na ci opposition am na expérience. Mhm. xam na ne. Euh, dans l'intimité de sa conscience que ces hommes-là n'étaient pas là pour le viser lui personnellement Abdoulaye Wade mais pour l'État et ce sont ces hommes-là qui ont continué à servir ñenn ñi euh, ba ñu dem retraite ñu doog leen a changer ils sont là pour l'État et Macky Sall tey na na woo Moussa fekk Moussa Fall nekk ci kanamu Bassirou Diomaye Faye du ko jot mhm. nekkatul patron am mhm. bu ko neexee sax du ko wuyu téléphone parce que Moussa Fall le chef de l'État du Sénégal lay servir. Mhm. Macky Sall ak lu mu mënta def pour les pour les forces de gendarmerie nekkatul le chef de l'État du Sénégal. Mhm. c'est Bassirou Diomaye Faye et il va servir Bassirou Diomaye Faye avec la même ardeur avec le même courage avec la même détermination avec le même engagement si on lui en donne l'occasion bu ñu ko dindee tamit euh, là où il va aller il va continuer à servir cette armée. Mhm. et bravo. à ce grand homme Moussa Fall. en tout cas c'est tout leur mal tout le mal qu'on peut leur souhaiter et puis day day aussi sénégalais yi tourné vers l'avenir c'est important de mettre cap sur euh, ce qui qui nekk suñu kanam te pas li nekk suñu ginnaaw.